di nuyu le président de l'ORCAV de Thiès monsieur Baye Labasse di nuyu Ndiouga ak waa seen grand place yëpp ñi mu àndal di nuyu les présidents de zone yi fi teew président zone de la commune di nuyu les délégués di nuyu aussi les représentants d'ASC di nuyu le directeur du stade Maniang Soumaré Doudou Sow ñoo na fi léegi di nuyu aussi l'ensemble de la presse bi nga xam ñoo teew pour couvrir manifestation di wax nii li ñuy def nii euh, cérémonie la bu am importance mu am euh, njariñ am aussi mbégte tey ñu daje fii pour signer benn convention entre seen Grand Place ak l'ODCAV de Thiès Sen Grand Place nag lu bees la mais Ndiouga Sock moom du lu bees ndaxte c'est pas la première fois ñuy jëflante moom euh, bërki démb bi ñuy def ñoom maa ngi leen di wax leen au-delà de lii Ndiouga a toujours un partenaire de l'ODCAV ba mu nekkee EGC jóge fa créer Thiès distribution ba mu ko créé aussi xel ma dafa jàppoon ni war naa mën a lëkkaloog ODCAV bu Thiès pour am visibilité mu ñëw seet suñu dox ci ànd ak sunu grand Eumeu Ndiaye ñu signé convention bi defoon manifestation bu mel nii contrat bi nekkoon un an bi ñëwee di waxtaan ak ñu di def euh, évaluation il di su ma leen waxee di gisuma sama bopp ci lii di def damay wax lu ma neex Thiès distribution gis na ci moom baax a baax a baax parce que lépp li nga xam ne ODCAV waroon na ko def ak les zones def nañ ko mais moom aussi lépp lu mu waroon defar ODCAV def na ko. mais ay contraintes moo taxoon mënuñu woon continuer collaboration bi xam naa looloo tax bi mu monté euh, euh, seen grand place xalaat na ni aussi war naa mën a ànd ak ODCAV pour que aussi structure bi gën a am visibilité mu waxtaan ci ak sunu président Baye Labasse mu ñu waxtaan ci ak ñun mu waxtaan ci ak président zone yi ñépp rafetlu parce que tey ñun jàpp nañu ni. njuga bu créer dara woo ñu ci gratuitement dañ ci war a ànd ak moom parce que fu mu mës a nekk muy EGC muy cette solution amul zone boo xam ne jëflante gaa ngi moom te deful la teraan bu ñuy préparer finale zonale ñëpp dañ naan nañ ñëw ci solution te article boo war a jënd njuga dina def ba sorte que soit da ngay fay moitié bi wala soo ko fayee aussi na la mayaale yeneen yoo ci yóbbaale. ba tey sax am na ñoo xam nekkuñu ODCAV bu Thiès mais dañuy woo Birane dañuy woo la dañuy woo ñeneen ñi pour wax leen ñu indi leen fii tey waa Tivaouane waa Mbour même ñu nekk hors de dañuy ñëw di ñu demander fan ngeen jëlee seen article ñu koy indi fii euh, may wax benn anecdote rek benn zone bu nekk Bignona dañ ma mës a parrainer final man xaw ma leen sax. ñu woo ma téléphone ni ma dañaa parrainer final jox ma maire bi ma ñëw waxtaan ci ak bay la ànd ak dur sow mii ñu waxtaan ak juga euh, bi ñu ñëwee di jënd coupe xaalis bi ñu yoroon coupe bu moyenne mais mu ko génne ñu coupe boo xam ni daanaka duñ ko tag championnat national ñu jël coupe bi yóbbu ko bay la dina ma seede bi ñu génnee coupe bi keroog bi ñu même maire bi dafa tiit ñoom dañu ne l'histoire du nawetaan mosu ñoo gis ku bu toll nii te ñooñu ba léegi chaque année dañ may woo téléphone di ma envoyé ay tiir ay dinaru rek dama koy envoyé donc loolu tax na aussi ñoom parfois bu ñu bëggee dara dañuy woo pour ñu jëndale ay article fii pour ñu yóbbu ko pour wax ni euh, collaboration bi muy partenariat bi ñuy signé bëgg nañu grand place seen grand place gis si boppam bu baax a baax a baax ODCAV aussi gis si bu baax a baax a baax am na benn convention boo xam ne mi ngi nii moom la ñuy signé léegi am na ay termes yu si nekk waxtaan nañ ci ak Ndiouga waxtaan nañ ak président zone yi je crois que dañu ko faram-fàccee léegi ci en général ñëpp xam nañ la mais ñun ñëpp d' accord nañ tënku ci loolu mais may xamal Ndiouga ni au delà de protocole bi am na loo xam ni surprise la du ma ko wax fii mais ñun ñoo ko préparé te d' ici quelques jour di nga ko gis di nga ko dégg pour gën a encore jox visibilité Walf saanaar n'a rien à voir ak le le le protocole mais ñun ñoo jàpp ni teraanga bi ñu ji war ñoo gën a kore lépp loo xam ne dinañ ko def pour que seen grand place am visibilité incha allah dina ci taxaw te fii fa di néew di nga dégg beneen événement boo xam ni war fa grand place dina ci takk bu baax a baax a baax te loolu laa ñu ne dara dara dara ñun ñoo jël initiative ko def ko pour war na aussi ñun engagement bi nga am ba ñëw ci ñun aussi am nañu engagement bu ñu noonu. et li may wax nii je le dis au les présidents de zone. au nom de tous les délégués en tout cas ñun kontaan nañu ci partenariat bi sawar nañ ci xam nañ ci aussi engagement bi parce que du ñun ñoo démarché moom moo monté structure am xalaat ne damay collaborer ODCAV moom moo ñëw seet si ñu moo tax man la ñun aussi moom waru ñoo ëpp ngor ci li muy def donc lépp lu ñu mën a def pour que structure bi am visibilité à travers le temps incha allah nous allons le faire et loolu te gëm naa ni au soir du du 31 décembre bu ñu def le bilan. je crois que nañ xam ne vraiment l'ODCAV de Thiès et les zones ont fait tout leur possible pour que euh, pour que seen grand place am visibilité bu rëy rëy rëy et ñu ñaan aussi que mu bañ a nekk rek ci bu fra bu ñu defee bilan mu nekk loo xam ni ay déwéni déwéni déwén dañ koy mën a continuer mu nekk intérêt waa seen grand place nekk intérêt waa nawetaan parce que loolu moo am solo sport je crois que pour grand membre wax na ko nawetaan léegi dafa demander ay moyens les zones ont besoin de moyens les ASC ont besoin man damaa jàpp ne lii pansement bi la rek mais nañ dem ba xam ni au delà même des zones de l'ODCAV ASC sax mën a jéggi seen bopp loo xam ne dañu leen koy defal. et loola aussi mën a tax attirer ñeneen yeneen yeneen euh, euh, structure bu dul sax distribution bi yeneen structure yoo xam ni da jàpp nañu aussi lii war naa tax ñu ànd ak nawetaan pour loolu et loolu ñëpp gis seen bopp parce que aujourd'hui la nawetaan a besoin de pour dina dem ci kanam nawetaan nag sekk na ay pas yu bëree bëree bëri mais loolu su amee dafa ay mooy li ma doon wax rek. sunu ay grand yoo xam ne ñoom lañu fi nekkal maam représenté tey ñoom ñoo jox puso bi ñu jàpp ci nii yi ñaw li ñu mën a ñaw ba sunu temps jeex ñu jox ko ñeneen mais aussi du ma pare te du ma remercier le président Baye Labasse parce que moom mën naa xam ni lépp lu ñu am ci nawetaan aujourd'hui xam ko toll ci moom ñu ko defal il représente très bien la région de Thiès au niveau national te lépp fu mu nekk fépp fu mu nekk bu ñuy wax il fait tout pour que Thiès soit en avant problème bu nit mën a am au niveau national soo ko woowee mu taxaw ci donc mu nekk koo xam ne vraiment mooy man damay wax ne man mooy sama mentor ci nawetaan man mooy sama référence donc lépp loo xam ne aussi euh, lu baax la day xalaat indi ko Thiès indil ko ODCAV indil ko zone yi indil ko l' ensemble de la région donc tey vraiment dañ ko war a remercier di ko ñaan aussi li mu mën ren na am lu mën lu ëpp loolu déwén li mu bëgg moo ko xam yaa na ko yàlla defal di ñaan aussi juga structure bi dem ca kanam a kanam ba dépassé fii au niveau du Sénégal ñu am yeneen structure yoo xam ne dañu koy installé dans les région lépp nekk seen grand place. Euh, di ko ñaanal parce que comme li ñuy expliqué rek waxuma ko ñëpp pour ñu ñëw fi parce que xam naa bu ñëpp bu ñëwee duñu fi xaj mais dama ni nañ ko defee nii euh, nga xam ne après euh, bu journaliste yeeg ñëpp ñëwee dina àgg lu nekk dina àgg ku ci war a jot diñ ci jot. waaw kon maa ngi remercier ñi fi teew ñëpp ak ñu teewul di wax ni yàlla na yàlla def jàmm te yàlla gën a dolli <laughs> di di sama copain du saw gis naa ko mu yox sànq dugg mais moom yàllaa ñu boole aussi parce que euh, li may wax ma ni deux depuis 2013 bi ñuy def euh, signature contrat bi tontu ëmb laa ci waxtaanoon booba mais dem naa ba benn instant man dama naan du ma ñëw stade parce que du saw moom fa nekkal te amul un franc bu ma koy jox wala dara bu ma koy jox lu yàlla taxee may wax mais tey jël ay nit taxaw indi leen ñuy jënd. bu gisee ko bëgg dara mu yabal ko te su ma fa nekkul mu mel ni man maa ngi stade wala nongam te li tax may def nii aussi lu may wax ak sama ñaari gars yi nga xam ne lu may def loolu ma ci waxtaan ak ñoom donte sama yëf la lépp lu may décidé damay toog ñoom laajee seen xalaat waxtaan waxtaan ci keroog ba bay la yónnee protocole bi kii bi dama ci toog waxtaan ñoom ñu rafetlu ko moo tax tey ma ne leen ñoom nañ ñëw toog ñu wax seen vision ñu gis mais ma leen xamal ñoom ñi que ni 2013 bi may def lii dama cee gis sama bopp bu baax dama cee gis sama bopp bu baax te après bi ma demee peut-être li tax renouvellement amul woon ay ati at ñu di ko def peut-être amul nekkoon ci suuf mais lii nga xam ni sama yëfi bopp la nga xam ne su ma jëloon sama almet kos kenn du ma ñemee kos taal wala kenn ñemee def naa lu ma ci neex def te xam naa ni lépp lu mu ciy def njariñam lay doon te lépp lu mu ciy def dinaa ci waxtaan ak xam naa am naa ci expérience parce que lu mu bon bon def naa vingt cinq ans xaw ma vingt six ans presque njënd ak jaay kon am na lu bari xam naa ko ci kon mouvement nawetaan man jàpp naa ni dañuy wax naan am na violence mais jàmm am na ci jàmm am na ci ci kaw ñi ko jiite doxal jàmm ji waaw doxal jàmm ji nag mooy comme niñ ñu koy defee waaw ni ñu koy defee ku nekkul ci yoon ñu teg la ci yoon ku nekk ci yoon ñu jàppale nga nekk ci yoon boobu noonu en tout cas bëgg a gis suñu bopp ci lii ñuy sanc nii moo tax ñu ñëw pour renouveler confiance bi ak yéen ñu ànd ci nekk ci waaw loolu daal la amoon lu may wax di remercier ñëpp di gërëm ñëpp. Euh, di rafetlu assemblée bi fi am tey di tàmbalee ci nuyoo bi di nuyu suñu PDG monsieur Ndiouga Sock nga xam ne à chaque fois du yem ci di ko wax mais daf ñuy jiital dans l'exercice juste pour que ñun aussi en tant que ndaw ñu mën a nekk dans de disposition de prise de décision. Euh, di toftale ci nuyoo bi euh, monsieur Baylo Bass. di président ODCAV bu cees ak euh, monsieur Ousmane Diop di nuyu aussi suñu du sax suñu doyen mais suñu papa la mais doyen la ci ñoom juga ku ci mel ne tonton Mamour Ndiaye ak tonton ëmb euh, li ñu fi dajale tey ñun ñëpp xam nañ ko euh, tonton Ousmane mu ngi koy wax léegi njuga au-delà même du responsabilité sociétale de l'entreprise dafa am benn générosité boo xam ne daf ko am ci xolam te générosité boobu du lenn lu dul nan lay def bay jàppale ay ndaw dëkkam ndax Serigne Cheikh moo ko doon wax ne l'intellectuel et celui qui s'active pour le développement de sa localité donc moom tey mënuñ ko dàqal ne activé wul ci lan mooy développé Thiès ak lan mooy développé localité donc ne serait que loolu mérité na ay félicitation mais aussi dañuy wax ne kiy wax mouvement jeunesse ASC moom moo ci ëpp doole boo jëlee mouvement politique jël ASC ASC daf koy ëpp doole ndax représentation bu légale mooy ASC koñ boo dem ñu dajaloo ngir am ab ASC ñu dajale ko ci benn zone ñu wëlbati ko at kaaf coiffé leen te loolu dafay firndeel ne ñun en tant que Sen Grand Place bu ñu renouer partenariat fraternel bi nga xam ne am na ci diggante Ndiouga Sock ak waa ODCAV bu cees renouer waat partenariat sponsoring bi nga xam ne am na ko ñun en tant que responsable bu seen Grand Place dinañu permettre fi ñu bëgg a yegg incha allah ñu yegg fa te loolu moo waral eh, jotaayu tey bi ñu tënk ko ci ay article comme ni mu ko waxee yemul ci dem waxtaan ak ñoom rek daal di ciy yem ginnaaw bi mu waxtaanee ñoom woo nañu woo ma woo sëñ Babacar mi euh, responsable commercial bi ñun tamit ñu liir ko xool tenants yi ak aboutissants yi wax ko ci suñu xalaat daanaka li ko ci wax sax mooy ëpp nga ñu ci expérience boo xam ne yow rek boo demoon tënk ñun amaana du ñu am lu ci wax mais ci humilité am la ñëwaatee ci ñun ngir laajaat ñu suñu xalaat et que noonu lay demee saa su ne di. feddaliwaat ay kàddu yoo xam ne moom yëkkati na ko fii di wax ne ñun ñoo jiite fii këmi man këmi Babacar mais ñun ak personnel bi nekk seen grand place yëpp dinañu mettre à la nekk à la disposition de ODCAV bu Thiès lépp loo xam ne mouvement nawetaan bu cees mu ngi ci ñun dinañ ci nekk lépp loo xam ne zone yi ñu ngi ci ñun dinañ ci nekk au delà convention bi nga xam ne dañ koy signé te loolu je pense que tàmbalee nañ ko ci fi ñu dëkk ndax maa ngi koy cité léegi en ce qui concerne la responsabilité sociétale de l'entreprise que seen grand place ngent la nekk te ngent bi mu nekk it am na ASC moo waraloon ñoom sax biñ ñëwul ñun ñoo dem wooyi leen ne leen ñëw leen ñu waxtaan ci ñun en tant que seen grand place nekk ci seen zone nan la ñuy tënkee ba mën a dimbali ASC bi ci koñ bi ku xam njugo tamit xam ne taaxi kaw mooy cosaanam donc ASC boobu tamit am nañ yéene taxawu ci jàppale ko donc lépp ñu daal di koy tënkaat nag ak waa ORICAV mu dem ci benn convention boo xam ne njëriñ yi bëri na. donc njëriñ yi bëri na ma cof ko tuuti après bàyyi sëñ Babacar mu yeggali ci donc njëriñ yi bëri na dans le cadre de la convention parce que ci li ñu war a xaatim tey euh, gëm naa ni donnant donnant la cinquante cinquante la wala sax weesu na ko ndax boo demee nga doon entreprise ñu permettre la nga mën a am ay banderole yoo xam ne mat na six nga exposé ko ci ñaari stade yëpp loolu en ce qui concerne la visibilité de l' entreprise weesu nañu ko bu ñëwee tey ci article bi 2 bi dinañu permettre ñun waa seen grand place ñu am ay stand lu tollook ñaari stand ci stade yi ngir mën a yombalal ñi nga xam ne dañoo ñëwoon stade que ci lu mel ne yenn fourniture yeeg yenn accessoires yi euh, bu ñu jógee ci loolu te loolu day dem fii ba euh, phase départementale et ak journal bu édition 2024 bu ñu jógee ci loolu aussi dans le cadre de notre publicité ñun seen grand place dinañ mettre à la disposition de l'ODCAV de Thiès des euh, prospectus yoo xam ne dañ koy distribuer ci stade yi que mu doon stade Maniang Soumaré ak stade Lat Dior euh, bu ñu ñëwee tamit ci article 4 bi euh, lépp loo xam ne waa ODCAV dañ koy def ak zone yi incha allahu rabbi fas nañ ko yéene defee fi nga xam ne moo di seen grand place que mu dem ci wàllu commande yi nga xam ne dañ koy soxla que mu jëm ci feuille de match yi que mu jëm ci convention yeeg fiche yeeg recette yi ak lépp loo xam ne dañ koy soxla dans le cadre euh, du mouvement nawetaan incha allah dinañ ko defee fii. Euh, beneen nag bi ci topp mooy euh, commande jaune yi incha allah dañ koy centraliser au niveau de l'ODCAV ngir ñu mën a yombalal jël jël beeg dem boobu noonu nga xam ne dañ koy am ci diggante zone yi. mais bu ñu xoolee tey ñun seen grand place comme dama ko wax léegi notre PDG monsieur Ndiouga Sock ci humilité ci disponibilité am ci reconnaissance ou responsabilité sociétale de l'entreprise am dina mettre euh, à la disposition de l'ODCAV ay lot de t-shirt yoo xam ne euh, effigie seen grand place dina ci nekk nga xam ne portières yi ñi nekk ci gisee yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy délégué de match yi dinañ ko sol te loolu dafa baax ci visibilité visibilité boo ñëwee ci stade nga mën a reconnaître les personnes de par ñoom seen code vestimentaire nga xool kii xam ne Lacoste la sol a ah, kii de Odekav la bokk tey man ma doon supporter ma soxla orientation wala ma doon presse moom mu mettre à notre disposition ay lot de Lacoste yoo xam ne dinañu permettre ñu mën ñu ràññee loolu day doon lu lu rafet boo jógee foofu aussi donc loolu cerise sur le gâteau la dama koy denc pour fin bi mais boo ñëwee ci cadre euh, partenariat yi ak zone yi ASC bi nga xam ne moom moo ëpp lum jënd ci seen grand dinañ mettre en jeu benn moto Jakarta te man dama koy wax ASC yi à but lucratif la te dañu war a entreprendre au niveau des ASC pour permettre ASC bi di dund ba mën a am lum dundee déwén ndax mouvement nawetaan dépassé na ci dañuy jël nit ñu jox ko président équipe bi kooku di génne ci poosam di dem ASC bi war na mën a am ay. ay ay jumtukaay yoo xam ne ñoom ñoo koy permettre ba nga xam ne bu bu bu bu rentrée wala bu euh, nawetaan jotee dina mën a demal ak ay moyens te tey bu ñu mettre à la disposition des ASC benn jeu moto Jakarta ASC bi ko ci gagné dina ko mën a permettre incha allahu rabbi mu mën ko teg ci terrain bi mu dawal ko loo xam ne tey amaana charge yu bëri yu ASC bi di am. moto boobu dina ko ko mën a jëriñ ndax dañ naan jàngalal nit bi nu ñuy nappee moo gën nga koy ngay ñuqi di ko jox saa su ne euh, beneen bi ci topp tamit euh, lii moom dañ ciy sant waa waa ODCAV bu baax parce que partenariat weesuwul lool nga dem ba ne képp ku fi jënd ticket ci valeur mille 1000 francs dina mën a am benn cachet boo xam ne seen grand place dinañ ko ci def mu remplacer yow sa ticket ba ngay jëndee euh, stade ba donc ñun ñëpp ñu déggandoo ko ñu yóbbu ko képp koo xam ne ñëw nga seen grand place nga jënd benn ticket boo xam ne valeur u 1000 la et que c' est loo xam ne yaa koy jëriñoo mu remplacer yow sa entrée stade ci jouru match bi. Euh, beneen bi ci topp nag euh, je pense que damay bàyyi sëñ Babacar mu mu xuus ci. jën li di ko seedee ci kanam mbooloo bi xam ni wax dëgg yàlla ki ñu nekkal du ko soxal te baat boobu ëmb na lépp ñu nekkal bu baax na ku tedd la te ku ñu yéene jàmm la te ku gox bi ñu nekk yëpp la ñu yemale foofu rek ci moom ndax bëgguñu moom tuur xéewal li ci des mooy sant waa Odeka baax a baax euh, di si jiital bi yi di gannaaw baas nga xamante ne wax dëgg yàlla yàgg xamante ne bu baax a baax ci distribution ba fii baw day wane ne moom tamit borom jikko la ndax amoon lu doon mel rek day gis boppam ci mbir te boobu ba léegi xam naa ne ñu mënti demee moom moom ak jikko mais gisul loolu li mu gis mooy. grand jigo jàmbaar la liggéeykat la te am na séeréer mun jàpp ko def ko rakam di ñaan loolu tamit yàlla suñu borom def taw bu baax a baax lu ci des mooy di nuyu suñu professeur xam naa xamew ñu sax ndax moo ñu yoroon laj yoon muy monsieur Diop moom doon jàng séjour ci fii ci laj yoon daa xaw a nag te léegi moom yàlla dogal na sax nañ fi sikki moo tax yu bari xam naa du ko mën a kii moom tamit ñu ngi koy jéggal bu ci toogaay bi ci kaw ndax suñu professeur bu toogee war nañoo toog toog ci suuf di ko euh, toog ci kaw comme ni sans pour comme ni ko suñu Bàmba waxee euh, bis mooy seen grand place seen grand place nag ñun dong néew ñu day fekk ni mbir moo gis day am ñoo xam ñoo koy jiite looloo waral ñu toog fi ñu toog mais jiital leen ci ñoo leen xam-xam wala ñoo leen dàqali wala ñoo dàqalaat Euh, loolu damay permettre ma sant leen ñoom ñëpp gërëm leen commencé ko ci Lamine Dieye maam Cheikh Ablaye suñu jigéen ñi ñëpp ay Habib Bato madame Silla ak ñoom Mama Tra ñëpp ñu leen sant ak seen ma part partenaire ak ñëpp ñu ngi sant ñoom ñëpp te xam ne li ñuy wax ñoom ñoom lañ koy waxal euh, grand bi dem bi mu ñu woowee ci li mu gën a insisté mooy boo leen demee ngeen wax presse ni leen ñun commerce la ñuy te ku kuy def commerce am na loo bëgg muy bénéfice te avant bénéfice di ñëw am na loo ci dugal muy soppu xaalis tey kuy investir tamit bëgg nga am bénéfice te nawetaan li koy yàq ñun ñëpp xam nañ ko dañuy toog fii laay waxal mooy indiscipline bi ci nekk moo yàq lu bëree bëri bëri te indiscipline dañuy pousser ci à ce ñu dem ci violence te violence boo xasee am ci mbir rek luñ ci mën di defee mën naa ne buñ ci waroon am 100 pour cent ba mu ay 20 pour la ci am te baaxul ci kilifa gi tedd gi di jógoon moo taxoon bon ñu ngi doon xalaat sax maag bi euh, lan la ñuy parce que loolu lépp du xaj fii ñu mën ko wax lan la ñuy ba zone bu ne ñu dem fa soit ànd ak kilifa gi jóga wala moom délégué ñoo Papa Mamadou bi nga xamante ni ku tedd la moom tamit ñu dem rencontré ASC bu ñu rencontré la wax la suñu objectif ci nawetaan wax la tamit suñu xalaat dajale population bi dëkkee koñ boobu ñu xam ni nawetaan du ñu bañ a indi benn violence li nga xam ne mooy yàq nawetaan loolu daal mu installé si trop trop trop si ni violence yi daal moom bu sañoon ren ñu dégg zéro violence ci nawetaan loolu dinañu permettre que xam nga tey violence su boo bëggee jaay sa bi wala nga bëgg kii loolu du yomb moo tax loolu ñu ci insisté bu baax a baax boo ñu mën a dimbali ci loolu ba nawetaan ko ñun xam naa après naa ci wax suñu baax moom nan lay def ba zone bu ne boo ñu ko permettre ñu ñëw ko. ñëw suñu représentant bu sañoon ñu def benn table ronde bu ndaw sax ñu expliquer leen parce que li leen bëgg expliquer lépp fii xam naa ne faj ndax ñun commerce lañuy def dañuy def librairie papeterie dañuy def consommable informatique dañuy def séri sérigraphe dañuy def reprographie loolu lépp nag bu ñu ko bëggee expliquer fii dina am contrainte de temps moo taxoon su fekkee bu ñu ko grand jiw mënee may zone bu nekk bu ñu mënee may temps bi dem ko ñu activité yi def lan xam nga parce que bii bu ñu ko toogee dañuy def discours ramassé rek lépp lépp duñ ko mën a leeral moo tax loolu bu fekkee noté ngeen ko ngeen dimbali li nga xamante ni bëgg nañ ko ñun ban population thiessoise bi li nga xamante ni moom lay def fii si seen grand place dañ koy def ñëpp xam ko ba defee ñëpp mën ñoo jàppale parce que nit ki tamit booy def dara ba ñëpp la si jàppale xam nga moo taxoon daal loolu tamit moo doon si incité tamit booy mën ne tamit euh, prévoir ay ay rendez-vous ñu fekk population bi zone bu waxtaan ak moom loolu tamit dina ah, wax na ci violence ni ma trop sax wax naa si beneen bi mooy ñu rencontré leen président zone bi na mooy seen grand place dafa war di ñëw stade ba à chaque instant xaw ma nag lu leen ko organiser xaw ma lu leen ko organiser ba mën ñëw am foofu stade parce que tamit faaw ñu am tamit protection boo xamante ne dañuy permettre ñu mën a exposer suñu produit foofu di ko jaay loolu tamit boo ci gën a mënee bàyyi xel ngeen notewaale ko bu toll benn stand boo xam ne suñu mën a toog aisé wax ak client yi foofu pour mën a ko mën a wax fekk nit ñi posé ñu question mën a gën a souligner yéen yi xëy na grand place lu bees la ci bëtu nit ñi. seen grand place. xëy na lu bees la ci bëtu nit ñi waaye président directeur général bi ak ñi mu àndal du lu bees ci suñu bët ñun waa nawetaan te tey jii bu fekkoon ni lañu ñu jëflante woon ak moom ba mu nekkee ci beneen structure rafetul ñoŋul gisu ci boppam tey du yëm du am yëfu boppam di xalaat naan xaaral ma dellu siwaat boole ci sama bopp ak ñooñu donc loolu boo ko defee aussi dafay dalal suñu xel man mën naa seede ni xale bu baax la xale bu am wëllëre la xale bu xam relation la ba ma ko xamee ak léegi gisuma ci moom coppeeku ndax bu ci ma ko gisoon aussi duma ko jaral mais tey jii sañ naa ko dénk ay lëf dem sama yoon te xam ne dina ko yeggale et jàpp naa ni moom ci làmmiñu boppam aussi bu ma wax ni la ñu jëflante woon ak waa nawetaan rëccuwuma ko ça veut ko donc le nawetaan aussi la ñu waxante woon ak moom def nañ ko jamono yi changé na contexte yi changé na loolu la sëriñ Babacar doon wax léegi nan la ñu seet nan lañ ko ci adopté dinañ ko ci adopté incha allahu rabbi parce que jàpp naa ne bu ngeen jógee fii li ci topp ci li ngeen di njëkk a def mooy daje ak waa ODCAV pour xool mise en forme loolu nga xam ne tey jii moom ngeen di signé nii bu ci kanamee ba ku ci nekk gis ci sa bopp mais ma mën leen seddeel rek ni ODCAV moom jàpp naa ni ci àdduna wala bon ci biir cees amul ku fi ëpp ku ko fi ëppale dimbali nit ci visibilité amul ce que nous avons dans le personne, je dis personne, ne l'a en termes de visibilité. Donc si nous, avons disposé, si nous sommes disposés à le mettre à contribution avec seen grande place, c'est parce que la main dans la main, nous voulons que Ndjouga puisse réussir. li ma doon wax veux rek mooy ñun nous, on am na le Sénégal vers TS Distribution. Mais désormais, nous amènerons le Sénégal à cette grande place parce que l'objectif a changé et nous voulons que cette grande place puisse occuper la place que nous avons occupée en tant que tiers distribution. Nous n'avons pas peur de le dire et nous n'avons pas honte de le dire parce que c'est Ndjougo qui nous a rappelé lorsqu'il est, à cette grande place pour dire venez avec nous travailler. Nous allons dire à nos ASC, nous allons dire à nos personnes, personnellement à toutes les personnes qui dem leen léegi seen grand place parce que ñun waa nawetaan foofu la ñuy dem ñu leen di gërëm di leen sant. oui dañoo dajee woon fii tey ànd ak suñu PDG monsieur Ndiouga Sock ànd ak suñu PDG monsieur Ndiouga Sock dans le cadre d'un partenariat bu ñuy signé entre Odcaf bu Thiès ak seen grand place di boutique boo xam ne boutique magasin bu bees la ñu tijji ko le 2 mars passé. Mhm. donc li mu ëmb bari na déjà monsieur Ndiouga Sock ku ko xam xam responsabilité sociétale li mu ko jaral ndax du tey la ko tàmbali tàmbali na ko ci prison yi tàmbali na ko ci jàkka yi surtout ci période Covid bi donc ci même perspective boobu la wéy di dem ngir jàppale jeunesse su Thiessois yi te Serigne Cheikh ko doon wax maa ngi koy wax léegi nga xam ne gox ba nga bokk na ngay fexe mu soqaliku te moom comme que Thiès la bokk malgré que entre jeune entrepreneur la dafa war a def léppam ngir jeunesse su Thiès waa yëg ci seen bopp loolu moo waral euh, partenariat bi ñu doon signé tey ñu signé ko ci la nga xam ne moom ci wàllam dina jàppale ODCAV bu Thiès lu valeur lu tolloog ci benn chèque gu million pour ñoom ñu mën a tàmbali seen activités yi mais ku xam ne nawetaan xam ne zone yi dañuy tàmbali ci ay démission yu ni mel mu mettre leen ku ci nekk benn enveloppe bu 100 000 pour ñu mën a mener à bien leurs activités de début. bu ñu jógee ci loolu it ñun ODCAV dinañu permettre ñu dem ci stade bi teg fa suñuy stand pour promouvoir suñu article ak suñu publicité boutique mais aussi ñun seen grand place dinañ jëmmal benn moto Jakarta boo xam ne ASC bi ëpp lim fi jënd moom moo koy gagné loolu ñu ci jublu mooy permetre ASC yi ñu mën a lancer wu dans l' entrepreneuriat ndax tey boo amee benn jakarta bu lay dawal mën na di euh, lijjanti leneen loo xam ne moom moo koy kii te man damay faral di ko wax ne ay ndaw fu ñu dajee war nañu xool nan la ñuy mettre en place benn entrepreneuriat bu leen di permettre xaalis bi di dugg ñu mën a mëne à bien seeni activité waaw zone yi moom li ñu ci fas yéene mooy ànd ak ñoom nuñ koy àndeek ñoom mooy lu jëm ci wàllu tee ñoom yi ñuy def que mu doon ASC yi que mu doon zone yi ñu fexe am fa lu ñuy def rek ñun ñu nekk fa ngir mën leen permettre ñu mën leen a sensibiliser jëm ci wàllu non violence ndax dajale ay ndaw dafa jafe yomb la canaliser ndax ku ci nekk da ngay jiital sa fougue de jeunesse dem ak moom donc loolu dafa laaj di di sàmmaat di fàttaliwaat waaye it di yaraat di tegaat ci yi loolu rek moo ñuy dimbali à ce que ñun tamit liñ am yéene ñëw def ko ñu mën ko jëmmal ci jàmm mais aussi ku dul ñun ku ñu sax ëpp doole bu amee yéene ñëw indi partenariat ci biir mbir mi mu mën ko indi